محمد sàkku xam-xam warna na képp kuy mbindeefu yalla bu gox wala bu jigen dama ni motax sen groupe scolaire bi di xaja dikkaat ak yéen chers parents d'élèves da ngay a bëgg sen dom jang arab poli ci jang français école bu bax ba ngi ni askan njóob saw ak liko wër dama ni bu len ko kenn wax ñaari yoon école bu bax bu wër bi moom modi di groupe scolaire xaja ñu vous proposons un enseignement franco-arabe de 50 sur 50 dañuy jang Arab comme Niko école arabe yi di jangé arab bu wër dëgër ba nopi rax ci dañuy jàng français comme ni ko école publique yi di jàngee waaw xanaa lii mooy jàng lépp dama ni groupe scolaire Radia daal dëgg-dëgg ñoo xam méthode du jàng le démarrage des inscriptions en classe de CI et de CP c'est à partir du 15 septembre 2023 ñu ngi fa l'inscription commencé inscription yi ci classe CI ak CP ci le 15 septembre 2023 bii di ñëw mani gaaw leen gaaw ngeen yóbbu pour plus d'informations vous pouvez nous joindre sur la 77 545 89 32 wala ngeen woote ci 60 77 185 55 21 wala ngeen woote ci 77 543 33 59 groupe scolaire Raja tamani balluwaayu xam-xam bu mag baa ngi nii bu leen ko kenn wax ñaari yoon gaaw leen gaaw ngeen indi seen doom yi inscrire leen balaa muy xat groupe scolaire Raja daal lépp lu aju ci